dafa bokk ci xeetu bokkaale ñaan ña fàddu moo xam du ñoo dund wala du ñoo faatu moo xam malaakal wala yonent wala jinne wala nit ku baax wala sàkk ci ñoom ñu xettali la wala ñu daal di lay yokk